saraax la nuy def ci xew-xewu làmb tey fekkaat fa combat ba waroon a dox ci diggante Boy Niang 2 ak Tapha Tine ñaari goney bawol yi Pape Thialis taxawaloon seen combat te bari woon lu ci laxasu ñaari champion yi Leewtoo taxawaloon seen combat te mu bari woon lu nekk ci su bari lu cay luus ñaari champion yooyee ku doon laajte seen combat ndax dana am booy boo laajte kañ lay am bi ne combat diggante Boy Niang 2 ak Tapha Tine xam dat baak ban ca des a yàqit dóor nañ ñaari mbër yi amal nañ seen signé de contrat njëkk ba ku nekk wax la ngay def sa morom booy ñaadee ne sama combat tafaatin xeex booy boo ñëw xam ne da nga ko gis ku ci séentu wut moom danañ bàccante luy metti tafaatin man booy ñaadee gisuma leen lu may teree xeex ak moom koo wax tafaatin mu ne la loxo yi loxo yi waaye man booy ñaadee maa koy duma ba mu tëddal boppam tafaatin le géant di bawol xool koree ne ko en tout cas combat bi mooy le combat de l'année booy ñaadee bu arbitre génne suñu diggante dama koy yëkkati ba ca kaw dóor ci suuf booy ñaadee ne ko man bu ma la yëkkatee du la daan sax ngay am lu la neex bu ma la yëkkatee dama lay jël ci ginnaaw stade ko ñaari yépp da nga ko def danaa la bëreloo danaa la xeexloo man combat bi zéro stress laa ciy doxe aw ci benn pression boo ñaane ko dana sedd dana metti tafaatin ne ko lu combat bi laaj ma jox ko ko bile combat Leewtoo production finalisé na ko dara desatu ca saison bu ubbi ñu jàpp dat bëre képp ca des diggante boo ñaade ak tafaatin dootu ñu laaj di ndax dana taxawam déet mais dañuy laaj kan mooy doon vainqueur leneen la axlu lamb di laaj mooy arène nationale bi kan lañ i empreinte mbooleem li xëy na àddu ci foofee sunu lamb ñeenti tur la andi di laaj ba xam kan moo ko ci gën a mérito arène nationale ñu tuddee ko Fodé Doussouba wala Fallaye Baldé wala Abdourahmane Ndiaye Falang wala ñu tuddee ko sax El Hadj Moustapha kan mooy El Hadj Moustapha ñu ne ancien footballeur ba nekkoon IS Gorée jóge fa nekk RTS comme reporter de lutte képp ku nekk ci lamb ji xam nga gile jëmm ci reportage u lamb bi le ak li mu def ci lamb buñ ko dippee arène nationale jaan na bu dee Abdourahmane it kenn du tudd champion te tuddoo ko rax ca dolli Pikine bi arène nationale bi nekk fa la dëkk moom lu ne def na ko ci làmb buñ ko dippee bile arène nationale jaan wàcc na keneen kañ doon wax le maître de bu mag ba diggante këram ak arène nationale matul ay mètre bu dee champion rek la wër champion bu ko yelloo la ngi ni dëkk biir arène nationale kookee ku ko tuddee làmb jaan wàcc na journal ba rax ca dolli indi cinquième personne keneen ca Cheikh président écurie Lansar lañ koy fekk moom it mu wax ci kan mooy succès président Alioune moom Cheikh Niang ay qualité la indi jàpp ne képp ko am yi qualité mën ngaa remplacer Alioune ku ci am sens de l'écoute nekk liggéeykat bëgg làmb ji jëm ca kanam teg lu tegu lu mën suqali làmb ji kookee mën naa remplacer Alioune ba nu ko laajee la sa xel daj mu ne Babacar Diouf Babacar Diouf mi yor règlement et discipline ci biir seen saison victoire ci am ak cinq défaites ku wax écurie asalem wax saalum saalum waaye moom it kenn gisatu ko bébé bu asalem ak bébé bu booy bambara ñoo fa nekk di sagal écurie ba ñeneen ña dee seen cinq combat yépp dañu koo ñàkk africa pip moustique 2 bu papa moo ko daan jéggi siraat teg jël bu pape daam moo ko daan caw bu ngoy booy melax bu jëf soog nekk moo ko daan cobra 2 fay 2 bu plateau moo ko daan bébé caat booy ñaa junior bu benn barang mbooloo moomu ko ñaq jariñu jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci etu yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah